deful it. gis ngeen li xew gis ngeen li xew feneen. ci yeneen réew. réew mi. am na ku dikkoon fii. am na ku dikkoon fii. di wax ne. di wax ni. ci bu xaw a mel nii. ci jotaay bu xaw a mel nii. waaw la la nekk Tunisie. waaw la nekk Tunisie. la nekk nekk Égypte. la nekk Syrie. la nekk Syrie. du am Sénégal. du am Sénégal. ndax am nañ El Hadj am nañ Serigne Touba. am nañ Serigne Touba. am nañ El Hadj Amadou Baro. El Hadj am am nañ El Hadj Amadou Baro. Serigne bi nee na ma ne ko defal ndànk. xam nga siri moom ngay tudd. mu ne ko xam nga siri boobu ngay tudd. sëtu yonent bi sëtu yonent bi. dañoo dagg bopp bi dañoo dagg bopp bi. jam ci xeej ci xeej. di wër di wër. di fàcc fecc ak da di tàccu. sëtu yonent bi sëtu bi. mu ne ko demal Irak. mu ne ko demal Irak. dégg nga ponkal ma Abdul mu ne ko dégg nga ponkal ma Abdul Xaadir Jaylaani. junni awliya ay junni junni awliya ruq boobu ruq boobu di Irak di ay junni junni awliya ñoo nekk ci ruq boobu ak i anbiya ay yonent Israël Palestine lan moo fa nekk ay junni junni yonent ay junni junni lañ fa suul ay awliya lañ fa suul ay lañ fa suul lu fa am léegi na lan moo fa am léegi musiba takkul musiba rayante bu dul jeex bu dul jeex mu ne lan moo ko def bakken rek ñu defe ne loolu mënta am ñu ne ñu defe ne loolu mënta am trois juin am fi 23 juin am na fi ci réew ci réew mi ku ko bëggoon. kan moo ko bëggoon. nangam nit deewuñu ci. ñangam nit deewuñu ci. Ablaye Wade daa bëggoon loolu. Ablaye Wade dafa bëggoon loolu. Macky Sall daa bëggoon loolu. Macky Sall dafa bëggoon loolu. keneen da koo bëggoon. keneen daf kaa bëggoon. ñi dee seen mbokk yi dañoo bëggoon. ñu dee ci loolu. réew mi dañoo bëggoon ñoo ñu dee fa. waaye am na fi. waaye am na fi. ndax dañ cee dugaloon bakkan. ndax dañ cee dugal bakkan. kon fa tabaarakallah. mu ni kon daal fa tabaarakallah. nañu téye ci mbir yi. nañ leen di téye ci mbir yi. terrorisme bii ñuy wax terrorisme bi ñuy wax ko fi bakken rek moo ko fi indi islaam islaam bañ na islaam diine jàmm la mu ne islaam daal diine jàmm la lu ko rax ci safaan lépp lu ko rax ci safaan du lislaam du lislaam waaye nag mu ne waaye nag ñoo dugal njuuj njaaj ñoo dugal njuuj njaaj. ñoo dugal ay tooñ. ñoo dugal ay tooñ. maa tey. dugal maa tey. maa def lu la neex. def lu la neex. sacrifier ay nit. sacrifier ay bakkan. sacrifier ay réew. sacrifier ay réew. nit ñi rebelle nit ñi rebelle wu. mënaluma la dara. mënaluma la dara. waaye mënal naa sa njaboot dara. waaye mënal naa sa njaboot dara. mënaluma la dara. mënaluma la dara. waaye fa ngay liggéeyee mën naa fa dara. waaye la fa ngay liggéeyee mën naa fa dara. loolu rek mu ni loolu rek la. bu mbir yi delloo nag. du mbir yi delloo. ñu sam sa sam euh, sàmmaat bakken yi. ñu sàmmaat bakken yi. yàlla mën na def sutura. yàlla mën na def sutura. incha allah yëpp dana dellu. incha allah lépp dana dellu fa mu newoon.